bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon ñaari <laughs> ey Cheikh Omar Cheikh Omar général a ngi nii Cheikh Omar awaay xoola général général lan la général lan la Cheikh Omar Cheikh lu mu xewle ay waay mënu ma ko gis Cheikh Omar ay waay seen Pamba daal risque ay waay maa seen Boy Malika mbër maa ngi <laughs> la ilaha illallah cey bi combat Cheikh Omar puus nagn ko puus a puus a nagn ko ba nak legui wura wa dem na keng waxe mak dem na nagn tali zela nena ko ba pare dina ay risque ngi nii Cheikh Omar xor risque way fuñu ñu mu may ma xaalis <laughs> la ilaha illallah ey lom fort lom fort risque ngi non Cheikh Omar mais risque mais risque lan la lan mais yéen ni mu décidé ne risque lan la. waaw confiance rek di ñaan suñu borom defal ko jàmm ko defal ko ndam. bàkki Serigne Touba mais jàkk ngeen ci côté yëpp. non pare nañ fépp su ma dee deux minutes bàyyi ma. su ma dee bàyyi ma bu ma durati. risque yaa wax lii. day diree ko jàpp ko dóor ko wër ko noomu daan ko. du yomb tey. dañoo pare barki Serigne naa Mohamed. Fils de Balla day xaar ba jamono nag général du morom Fils de Balla ñu sa kaw a jëm. ay yàgg na combat bi yàgg na de. walaay da nga koy dóomu daanu na gën a dëggal moom da nga koy dóor mu wàcc ragal loolu. loolu du samay wax de. amata risque xoolal Cheikh Omar daf may soqi daf may soqi booy daf may soqi barke Rasoulaay booy Malika moo dimbali de risque ngi nii l'infatigable barke yonent yàlla moom

Zé day wàcc Zé wàcc na ay waay Zé wa ngi noonu eh laay laay la laa Zé lan la Zé lan la Zé Zé lan la Cheikh Omar Zé lu ko naqari lan la. waaw Zé daa jàpp confiance. Zé tey lan la Zé. Zé dama décidé ji lan la. ñii est-ce que mosu ñoo bokk gel Cheikh Omar. Ah, mun na nekk ah? mooy seen problème ñoom ñaar lan la. ah. xeex nañ ci ngénte yi. xeex ci dëj yi xeex ci morgue yi xeex ci grand place yi xeex ci marché yi général Malick ak fils de Balla lu seen problème Cheikh Oumar ñii est-ce que mos ñoo bokk gel Guédiawaye wala Kër Massar te man xaw ma ci dara Zé lan la Zé Zé lan la Zé lan la Zé lu la naqari yow ak yow ak fils de Balla lu ngeen joxe lan la Zé sa digganteeg fils de Balla lan la Zé Zé menacé nga ko Estar fekk nga ko Auchan menacé ko. fekk nga ko Adrien Senghor menacé ko fekk nga ko gaal gi menacé ko fekk ko arène nationale ko c'est lan la sa diggante ak Fils de Balla xaw ma ko man buur en tout cas am nañu problème ah. am nañu problème général le plus haut grade de l'armée ay g bu ne sarax ci buntu bi ay bu ne sarax ci buntu bi général jili daa mbapat jili jili daa mbapat genn ngoon 40 combat la nu bëre daa mbapat jili nee naa tey kuy soldat jugal match général bi yëgsi na <laughs> seewa ngi noonu c'est le plus haut gradé ay zee ay zee ay zee ay zee Cheikh Omar ana waa Malika Cheikh Omar ana waa Malika Cheikh Omar ana wa Kër Massar Cheikh Omar ana waa Buun Cheikh Omar ana waa Ñàgg Cheikh ana waa Diène Cheikh ana waa Bambilor Zé lu ko naqari daraja yàlla xaw ma lu ko day dugg Cheikh Omar bu duggee day siif Zé bu duggee day siif Cheikh Omar bu duggee day yëngal Cheikh Omar jili bu duggee day siif Zé bu duggee day siif maa wax lii. day dugg rek siif maa wax lii dama ni Zé bu duggee day siif. ambianceur la. xale la. daa daal day siif Cheikh Omar day siif day siif Cheikh Omar li ma lay wax xam naa ko Cheikh Omar Zé day siif. Cheikh général day siif Cheikh Omar Cheikh Omar général day siif. laa ilaaha illallaah ay waay ay waay ay waay fane lii lan la ay waay xoolal Zé. seet teet teet teet teet teet xoolal fii sa bala xoolal fii sa bala Cheikh Omar xoolal fii sa bala xoolal fii sa bala Lamine général ñëw waaw dara amul benn problème Lamine Lamine général ñëw waaw général ñëw na confiance bi indee man jaaxal loolu lépp du dara dafa nawloowul ki muy bëreel mais tey jii la koy nawloo fii si digg géew bi loolu mooy lan Lamine général daa xamul fils de Balla tey la koy xam fii si digg géew bi mais combat gaynde non déggoo li ma la ñoom ñaar ñëpp samay raq lañ te général booy bu yaru la mais kii mooy sama poulain dama koy ñaanal ndam fu ma romb daf mooy jox fekk ba fu ma taxaw mu nuyu ma. kii ji kii daal jekk na. kii su tey général Aziz dina bëreeg moom 90 minutes fii tey. 90 90 minutes dinañ ko bëri. Lamina wax loolu Cheikh Omar le grand coach. góose la côté góose bi rek ngay fa. mu ne de. général góose la daa góose yow ba ëpp ñun ay bërekat lañ. Eh, xoolal see xoolal see. xoola see taxawal xoola see laa ilaha illallah nee na jeex na Cheikh Omar waxuma ko champion la Fallou Fallou général ngi noonu général ñemewuma ko ne woon naa bu ñëwee day siif ñemewuma ko champion la xale bi ni mu dugg see ñemewuma ambiance de xoola see xoola see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 lay bari te lay bëree bari lay bëree bari te lay bëree bari